ak bi mu toogee lan la fi def yoo xam ni loolu kenn mënu koo fàttati ñu mën ci jàng lu bëri. dama lay commencé bés ba bàyyi Seydi Thiaw jëkkee toog sa xilaafa gi. boobu laa soxla ndax boobu dafa am yu bëri yoo xam ni. am na yu bëri yu su nekk am na ñu mën a wax ak luñ mën la wax keroog ba mu xëyee maax moom ñoo ndékkindoo. waaw jërëjëf. ak Baye Libaas Sall. Uh-huh. ak Baye Ibrahima Silla. Uh-huh. Baye A Ndiaye. Uh-huh. Baye Issa Laye Ndoye. ñoo ndékkindoo. est-ce que. Baye Seydi Thiaw tëdd na. waaw. lu jiitu mu toog mhm. bàyyam yoon ne ko jàmmalaay ne ko demal julli ji moo ma wax si gémmañam dem na ba su guddi di nafar ay téeréem hmm. bu ubbee téere du gis mbind yi mu di naafila ku daan naafila guddi la hmm. mënatu la taari faatixa hmm. billaahi bay seydi sooma barke seydina limaamu laay mënu la taari faatixa moom bay seydi coow te booba am na lu ko wax xel ma dem koh, ko wax mu ne maamam mu ne ma sama maam limaamu laay moo fëgg sama palanteer na ma isaa mandoo mënta ma amoon ma defal nangam ak nangam mhm. waxuma la ma dégg si nit dégguma si kenn bay seydi coow moo ma wax nee ba loolu amee mu jog def loola ba fa jar jaxare mu taari mu ritax lool mu taari leneen mu ritax lool keroog ba bay seydi di julli ji man mangnya ñaa ibra ñoo ànd ku ñu wax Ali Thioro Ndoye ak Jibril Njaay mu bàyyi sana Njaay ñoo ànd jóge bo booba layeen i bariwul dem julli ji bàyyi Seydi Thiaw boo mu jullee ba pare këram bam tergaal la sol mu ñuul mais ñuulul fatta am ay rëdd jiital am laafa teg si kaala gu ñuul gi kaalawul kaala gu weex mhm. alhamdulillahi lazi xalaxal xalqa bàyyi bàyyi libaas ne seydina ise saxiir ibnul kabir doomi seydina mu mañoon mu mag ma di doomi limaamu laay nee na mboolem xaji cente yi ñent lillaahi ñel na yàlla bàyyi say jiw ne lazi xalaxal xalqa mu ne nee na mooy buur bi nga xam ne xalaxa moo bind alxalqa mbindee fi mu ne wa jaala min um rusulan bàyyi seen ca wax wax ja mu ne mu def si ñoom ay yonante wastafa min rusuli muhammadan mu tànn si biir yonante Seydina Muhammad keroog la bàyyi Seydi Thiaw jëkk a wax wax ji mm-hmm. daal xot xutba xutbaam ba bàyyi li baax sàll moo ko doon jottali ba ñu ñëwee si kër gi dugg toog ñu defar laaxi ngexi laaxam ngex xam nga ko laax ngex doon naa ko dégg ci mag ñi de mooy laax yooyu am diwtiir ji te <laughs> laaw yooyu daan am kër bàyyi ma ne doom <laughs> diwtiir ji ñu jambalaax ya wallaay ñu lekk ku nekk ñibbi mhm. bàyyi say jafe-jafe la jëkk dajeel ba mu faloo nag nekk xalifa mhm. bëlee laa fala sol mais bii ñaari kaale loo bu jàmmalaay mhm. keroog maay bàyyi isaan dangulaan moom lañ njëkk a tudde Seydina Isaa si yoof dëkk nga di seetam maam Kumba Ndooy mais keroog bi muy bi bi muy njëkk a toog eh, ci xilaafa bi nga xam te ni keroog la ñuy njëkk a jël. kaala gu ak bu jullu googu la ma laa wax. waaw boobu noonu. waaw. Eh, fan la ko defee yoof. yoof yoof la ko defee. dëgg la. yoof la koy defee tabaski la wala korite julli boobu. fàtte na ma nag. ndax ko tabaski la wala korite fàtte naa ko mais defe naa daal korite la woon. dama fàtte parce que dafa yàgg. dafa yàgg léegi nag. waaw xam nga ñun lu ñu bëgg foofu dafa am laaj bu sew ma soxla. waaw ndax ñun dañuy gis. waaw te kumpal su ñëpp nag wax dëgg yàlla. Mm-hmm. kaala gi euh, bokk na ci màndargay Seydina Limaamu Laay Mahdi sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. mais euh, bëgg nañ di xam parce que ñu bëri nit ñi kaalaak xalifa yi. wax nañu ni bëri na ñoo xam ne da leen yéem ndax kaala gi yombul dafa dafa spécialisé. bàyyi dafa toog. Mhm. am na ñu ko daan kaala. Mhm. wande mujjantal gi bu duggee sim néegam la kay kaala dug nit. Mhm. moom Seydina Limaamu Laay. sallallahu alayhi wa sallam. kaala gu jëkk ga mu kaala woo du oote. moo ko teg si boppam wante kaala yi si des la doon kaala bàyyi laay dug nit. Seydina Mañ Seydina Isaa hmm. ki ko jëkk a kaala hmm. si àddina hmm. mooy maam Njëga Géy maam Njëga Géy Njëga Géy doomi Buuba Mbenga ak Amadou Géy mu tay ba di woneer Seydina Isaa di woneer ba lay laay génne àddina ñaar fukki fan ak benn lañ sa teg mooy période intermédiaire bu xalifa deewee ñaar fukki fan ak benn la ñuy toog doole kaala ka Baye Mandione. Mhm. Eh, maanaam Baye Mandione maam Ndiaga Gueye moo kaala Seydina Isa. Seydina Isa. 1909. Mhm. Mhm. ba bàyyam génnee àddina. mooy sa fin ba. mu ah. teg si ay fan yu néew moom taf seen njëg a génne àddina. du woon ab ab tijaan la. ak mbokk moo ko dugal laayeen. ak wane ne sës naa mu kaala bàyyi Seydina Isa moo jëkk a teg kaala si boppam Seydina Isa waa nda fekkew ko. bàyyi ma ñoon nag xaw ma ñu ko daan jëkk kaala wante kaala yu mujj yi ñu fi fekk mm-hmm. mbay saar mm-hmm. doomu yaa ayta seen mm-hmm. dib jarbaatam moo ko doon kaala moo doon kaala bàyyi Seydi di caw raan xawma ku ko kaala bàyyi Ablaay xaw ma ku ko kaala waaw tey nag si bàyyi Seydi Thiaw la si bàyyi Seydi Thiaw daal kon jàpp nañu bàyyi Saar mi mbokk na si ñu doon kaala Baye Sidi moo ko doon kaala sax. waa kay jëf waaw waaye nag ñii si des dëgg yàlla. xaw ma tey tey bisum bisum Baye Sidi Thiaw la. waaw xaw lee moom ñëwaguñ ci maa ngi ñëwaguñ ci yële. waaw tey si Baye Sidi Thiaw la. boo ma ko laajee du ma ko xam xanaa ma laajee ji ko. waaw kon kay incha li ma xam daal. mbay saar moo daan kaala ndi jaay ja. Euh, mbokk yi defe naa loolu tey jàngit bu rëy bi nañ amati wax dëgg yàlla ci ki nga xamante ne mooy suñu waajur muy Baye Baye Baye la dama la doon wax sa julli gu jëkk ga. waaw fa lañ nekk foofu laa bëgg ñu dellu ca. man maa Kamara jéen waaw rakk El Hadj Ndiala Guène jaraafi yoof. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. Kamara Diène moom moo féete ndijoor. Mhm. Baye Issa Ndangulaan féete ma si ginnaaw. Serigne Bass féete ma kanam. jigéen loolu Baye Seydi Thiaw si ginnaawam la daan topp. nga xam ne ma Serigne bi ba mën a nii laal mbubaam. Baye Seydi Thiaw boo mu ñëwee taxaw ëlbataku di kàbbar billaahi wallahi taala barke limaamu laay Baye sàndangu leen man kamara jéen waxu sa ginnaaw man nag gisuma dara man day gisuma dara wante kamara jéen moo wax si gémmañam ni keroog la tax yuuxu mu ne ma Seydi Thiaw ba mu demee bay kàbbar bàyyi laay moo mu tëddoon jog ba si ngelaw lu solu Seydi Thiaw ba mu fees del mu ne ma keroog Seydina Limaamu Laay moo jiite bàyyi sa ndàngulaan wax na ma lii bàyyi Seydi Thiaw bàyyam génne àddina hmm. premier jàngi Seydina Mandione hmm. muy taw bàyyi Mandione saa yu ñu ko jàngalee ñaare mu taw hmm. bàyyi Seydi Thiaw toog si jàngay keroog sëñ jëkk na bërit daal di jóg taxaw xam nga dafa yëngoon mhm. dafa amoon lu ko yëngal mhm. mu ne bërit jóg taxaw daal di laaj rajo bi ñu jox ko ka mu nuyoo daal di gërëm bindee fi wante mu ne maa ngi leen di xamal ne malaaka yaa ngi mhm. xamal nañ ma ma taxaw man ni jàng sëy naa man yoon saayibul kiraam képp ku fi ñoon yàlla jéggal nga say dama dama na sa xëlim ak dama ne ginnaaw Baye di Thiaw bënëb sëriñ si senegal si ñi ko jiitu ak ñi ko fi mujj ak ñi nekk fi sëriñu tariixa yëpp kan moo si ma taxaw ne malaaka yaa ngi nii wàcc di def nangam. waaw Baye Seydi Thiaw moo waxoon lii. tubaarkal